aboneel bul fàtte bës notification bi ngir ngay am suñu vidéo Ibrahima Diallo foofu sukuru gu boobu. boobu rek sukuru bi rek bàyyi gën a sukuru bi dama koy xaar mais sànq bii nii sukuru bi laa doon xaar gisoo may ree naan nii. fekk ay tee salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaare di leen ñaanal jàpp saa su te di ko saako ci yéen di leen ko wax rek comme ni ñu leen ko doon waxee saa su muy guddi wala muy ngoon wala muy bëccëg euh, ça dépend ci heure bi ñu seetaan waaye ñu ngi ci seen biir émission roube fii ci biir Elvision Média te wax kàlla noonu laay jaare nag di ñaanal ñi nga xamante si dañoo jiitu ji yàlla leen suñu borom yàlla xare a féete ginnaaw yàlla leen a yëkkati incha allahu rabbi ba ñu delluwaat te yitee ca kër ga waaye nag noonu laay jaare di ñaanal képp koo xamante ni waxtu yu yaa ngi ci tali bi di dóori waar yal na lépp waaru ba nga delluwaat ca waaroo ca kër ga waaye di ñaanal chauffeur receveur coxeur yal nga xamante ni waxtu wi ñi nga ci seen biiri kër di ñu teewlu fii ci biir Elvision Média ci seen émission bu mag bi di wubee waaw euh, ak bër clando yi aussi sama xarit yi wa garage sikam Mbao wa garage Talimam Diarra wa garage Petit mbaw wa garage Grand mbaw ñom ñep ma ngi leen di kontaane bu baaxa baax ndax man Petit mbaw la yeewoo fala dekk kon wa garage Petit mbaw Grand mbaw ñep ma ngi leen di kontaane bu baaxa baax di leen siaré di anda ak émission bi nak sama chéri mon amour ki nga xamanteni ni tabarkalla ko def ah tabarkalla fi la ko def ah, ah malo birima malo may sa pendi jor maalaw labba ah dom yaay Kunta Kinte mère deuguer deun ñu ne mam daan ñu ne daan wuya wuya nuyu woo seen waa passerelle ba de. Eh, waaw waaw waaw suñu wàccukaay passerelle ba waaw wàccukaay ak mairie jaay ci buntu passerelle bi waaye nuyu woo seen waa passerelle sa xel si la leen <laughs> waaw nuyool. waa passerelle non nuyool nuyool rek paa bi dafa sopp lu muy dawal. <laughs> kii dama ko mën kii yàq na sama émission tey tey sama émission tey man man man Tické Ba mooy ba ngeen xam ne tey ngeen xam ne damaa ñàkk fula aw ma fula ndax kii du daja nga xamante ni ah, mooy roube ma mm-hmm. ah, ànd ki nga xamante ni mooy sama kër bu mag bi nekk sa kër bu ndaw waaw xamante mooy Bamba la macha allah moo tax yoonu murid daal di leer tubaarikàlla macha allah moo tax tubaarikàlla murid daal di am na bës mm. xam nga suñu bës dafa mm. mm. la duppee mais moo jongo ma ah. man maa la biir daan na mu ne ko yàgg nay daan maa ngi ragalu ma loolu <laughs> eh. mbaxal mi fii lay bindee. dama leer. waa El Vision. waaw ñoo wala bee de. waaw. mbaa togg na ndaxit. <laughs> moo ma jaaxal mbaa dagg ngeen li moom. <laughs> am ngeen gani law beeg seen i doom et eh, mbaa dëbb ngeen fëlax. <laughs> après ma ci taasu gi. waa El Vision ñoo walaw eh, be eh, dagg ngeen li moom. am ngeen gani law beeg seen i doom. mbaa dëpp ngeen fëlax yow kañ ngay mën loolu nga xamante ne te ambiance yi kii wàcc non xamal loolu sax après damay bëgg juróom caay laay sol ma jàppal la ko fii rek kaki sa gidda kenn sa gidda eh, yaa woo law be yi gidda eh, mbaa toogu nga doxi sa gidda mbaa dagg nga li moom am nga gane law be que seen i doom yéex mbaa dëpp nga fëlax eh, ah. yow dama ko bëgg waaw ah, pourquoi pas pourquoi version waaw xam nga mbëggeel nag tabarkàlla day euh, day feeñ ba ci solu mbëggeel day feeñ ba ci kanam mm-hmm. mbëggeel day feeñ ba ci jikko mm-hmm. mbëggeel day feeñ ba ci melo waa baa xam nga ni sa maama la yar waa leer na waaye noo xam ne sama maama yar <laughs> sa bàjjan moo la yar waaye noo xamee sama bàjjan dama sa bàjjan a yar xoolal El Hadj zubal ma li ma lay bëgg a wax nii gis nga xale bu bàjjanam yar ak xale bu maamam yar tey ma décortiquer la ko décortiquer gis nga xale bu maamam yar waaw reewande gaa koy jàpp ba du am ans waaw waaye xale bu bàjjanam yar bu la wanee ginnaaw ba ne wëlañ compter une deux trois quatre romb la waaw <laughs> lu fay feeñ day faj dof day rey ku repput day day day duba ku defut dara ak lan laa ilaha illallah yàlla ah, yàlla musal ci gone bu bàjjanam yar ah sa bàjjana la yar moo sa wëlañ rek sama bàjjana gëj a ko maalaw gëj si di mu ngi doon toog tubaari kàll koo ko bokk sëñ tàkko ndey ak baay <laughs> ah koo ko bokk ak Ibrahima ndey ak baay a yar maa sama baay xam nga damaa am sama benn xarit ah. boo xamante ni si à tout moment mhm. daf may wax naan ma mhm. euh, paa bi ko dugal néeg góor moom saa bu rombee ay doomu paa bi da leen di jox junni ah. waaye yow sa bàjjan baa jeexal sa bàjjan moom foo ko romb wala foo romb ay doom war nga leen a jox junni non non finalement nag sama bàjjan mm. doomam yi ah. moom moo fi des ah, moo tax nag at mu ne dama koy defal tànn biir at bu ne anniversaire tànn biir bu mag laa koy def ah. ma daal di mag laay defal sama bàjjar daf moom. est-ce que sa bàjjar nga ne am na saa ndax tànnibéer gii di ñëw rek. waaw c'est El Vision Médias war faa ñëw. waaw waaw tabaarkàlla macha allah. waaye kontaanoo ci loolu. oh tabaarkàlla mbaa yi nga ne mbaa yi nga lu nar a neexee ni tey émission bi loolu mosuma ko gis. noo tey euh, damaa bëgg tey ñu dem sax comme euh, tàmm nañ dugg Ngéwél central. ayca tey damaa bëgg tey ñu dem Ngéwél oriental. ayca parce que à comme on dit à tout moment. pare naa. Euh, à tout moment. Mm-hmm. bu ñu àndee man ak yow Ngéwél mm-hmm. Euh, tabarkaala foofa da daan yëngu. Mhm. Euh, ba tax na tey euh, sa sa soppe yi ñu ngi ñu ngi yëngu nuyu leen. nuyu leen bala maa tàmbali ndax xam naa ne suma ma tàmbalee doo am seen jot. déedéet xalaatuma ko sama këru am nuyu leen damay nuyu sama waa ji nga xam ne la xam naa sax war naa sàppi biir El Vision Médias waaye nag tubaarkàlla loxoy ko jox day weesaloo mm. muy ki nga xamante mooy mënd kumba géej ak saafaana ma njël benn sama waa mm. ki nga xam ne moo bëgg sama jumelle de cœur mm. ki nga xam ne su ma jooyee mu jooy su ma mm. ree mu ree tubaari kàlla na fi maa ngi koy béggee ki ne njaay sama jaba jooy coog ci mën a yekk ci booli monsieur ni caam caam baabee demba caam tëgg bi dawul mbaar benn yoon à tout moment zérom traiteur sama waa ji kenn du moom traiteur bi ci tudd zérom traiteur lu mu toggul baaxul yow zérom loo toggul yow baaxut <laughs> tubaarikàlla xam na lay def <laughs> day togg këram ba mu pare togg këram de ku <laughs> dëkk West Foire ko ñu wàllu seen day togg ba pare ambulek ba mu jëkk jox ko cag-cag ma andi ma sama biir kër yow zéro barki Serigne Touba ko ñu wàllu seen la dëkk kon est-ce que duñ euh, rek ci sëñ Fallou ñëwal ñëwal hmm? ci wàll ak maaram bi ñëwal ñëwal

buy waay ni muy réewante man na xanaa man loolu laa bëgg man du loolu même buru man moom même buru man nit bu réew rek di wax di ñiiñ li ngay wax kenn du ko xam moom laa gën a bëgg kuy wax wax bu jub ba ma lay njëkk a doxaat waaw li tax xam ma loolu da ko doon wiri li ngay wax laa ko jëli sama bëgg la yow dafa yàgg taman sentir naa balaa balaa may pare la ma doon wax fekk na nga jooy bu yaa waaw loo gën a bëgg ci man say couleur sa étérène moom. waaw couleur tendance. waaw dootu ko def. ndax <laughs> damaa téye couleur yi. laa ilaaha illallaah. wuyaay. wuyaay. ndeysaan. ay. bamba woore. eh waay. maa woore. ndeysaan. sëriñu Cheikh

waaw waaw waaw waaw ñoom wax ma loolu de damaa bëgg soo paree est-ce que yow tey li nga añee maa la ko jox xam nga ni ngeen def feeñ ngeen Wally Seck Wally yee xaaral yow xoolal loolu de balaa ngaa mere Wally yow est-ce que li bi waaw xanaa xaw xamu ne dëxin boo ko poobar <laughs> gi. yow est-ce que dëgg poobar bee lay rek. est-ce que mbaa nekk da ngaa dem keneen dëxante la dina jox ay. mais wuy naar yooyu noonu. Euh, xam nga Mbaye Gueye le jeune milliardaire. Mbaye Gueye ban Mbaye Gueye Mbaye Gueye. non Mbaye Gueye le jeune milliardaire benn euh, milliardaire boo xam ni tabarkalla daf ñuy mhm. seetaan. Mhm. bëgg ñu lool. macha allah ne ma yow ak Tické dama leen bëgg. mbay Gueye moo wax lii. Mbaye Gueye ci boppam. Mhm. nee na dama leen a bëgg lool te incha allahu bëgg naa am lu ma def ak yéen. Mm-hmm. donc ci biir loolu nag. Mm-hmm. Euh, xawoon naa ko fiiree ak yow ndax ba muy doog a ah. tàmbali ndax ni mu doon waxee gi. man ticket xam nga oh, xale bi dafa saar ma xant mm-hmm. ma ne ko ma sama xel ah sëñ bi <laughs> jàmbur jàmbur ngay waxal de mais xoolal. tey tey tey dama ko bëggoon a dugal sama émission. ndax dafay nekk waa ju baax macha allah mën teraanga mën lu baax te di ko def. mais émission dafa war a am appel vidéo xam nga may defaale nii ne moom daa bëgg di a ko <laughs> affaire. fii de laa fi nar a gis nag loolu ma war nañu koo lijjati. fii de laa fi nar a gis am jëkkër am far waaye yow sa jëkkër nga taxawal da ngaa fàtte waaye. la daan kar wana am jëkkër am far am xarit bu lay may géej jéeg juróom fukk te du ko wax càmmiñal yaaba neex aw jën eex aw band aw liir liir aw lamar lamar del ceeg gi bas yaa ngi koy gaañ avance est-ce que loolu boobu jee daal <laughs> non bar barki Serigne Touba non man bu nga dégg dëgg mhm. bu nga dégg dëgg ba dégg sama sëy bi bu yeboon nag nga def pour le tout am xolu muñu ka wala nga wut ay ñaan non man parce que ku ñëwaat bu takk ba damay nangu non man ba ma defee erreur bay lay génn ci télé bi jaam yi di la gis ngay def say couleur ñuy apprécier. am na benn émission boobu dafa am benn artiste boo fi invité artiste noonu la ma toppee ba tey mais mais mooy loolu. naan da laa nopp ba léegi tasal ma takk la tasal ma nee nee naa la ñaan baat mu takk ma. si mais mais mais am na ku am na ku nekk ci ligne bi. nañu ko ne ko ne ko allo. allo. allo oui. noo def waaw maa ngi nii ragaluma loolu kooku. waaye man la Jom Sarr. dégg eh. loolu ëpp na. <laughs> Kër Saalum mais tey El am na gan de. tey El Vision am na gan ma ah dégg nga déedéet kay. <laughs> ñu mbaa ne la instant nii la ñuy déglu. ndeysaan ndeysaan kay ndeysaan dégg loolu. mais sinon. waaye ñu ngi nii Jom Sall ngaari lam toora buuru Gédé. ah kontaan nañu déggal loolu. lii daal neex macha allah macha allah déggal loolu. moom tamit ñëpp a ngi jàkkaarloo ak émission. ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw di leen di leen kontaanee bu baax a baax. ndeysaan di leen jàpp rek bañ a bàyyi. ndeysaan ndeysaan. waaw parce que ñu leen di déglu rek war nañ tax ngeen reyante quoi. dëgg la dëgg la. ngeen gën a pousse affaire yi xam nga. saan waaw lu neex naaw moom lu du doy ma xejal ñeneen ñi rek. ndeysaan ndeysaan ndeysaan mais comme mais ah. nag mais nag bëggoon naa la poser benn question laataa ngay dem nga xamante ni yow mën naa ne. Euh, mën naa wax sax ne yow actionnaire nga biir Elvision Média. dëgg la dëgg la euh, nga boo xamante ni si amoo sens interdit biir Elvision Média. Mm-hmm. Euh, ñu initier émission bu mel nii ñu tuddee ko Roubé. Mm-hmm. Mm-hmm. tabarkaala nga yëkkati sa téléphone woote. donc li ma laaj mooy lan moo la gën a impressionné ci émission bi nga xamante ni si ñu ngi koy def. sama sama jabar ji leer na waaw mais kontaan kontaan rek moo moo waral woote bi ndeysaan gis naa ni gis naa ni yéen a ngi jéem quoi mm-hmm. waaw yéen a ngi def euh, tout pour satisfaire ñi ñi ñi abonné ak ñi bëggee waa El Vision quoi ndeysaan ndeysaan xam nga te wax dëgg fa yàlla soppe yi mënuñu leen fay mm-hmm, mm-hmm. depuis bi ñuy door ba léegi ini anu pak coba ini hmm, hmm, hmm. teh musnyo musnyo musnyo hadi musnyo baik pamperan nggak mau mungkin kayak tidak beli kayak berangkat bi dañuy gën a dañuy gën a kontaan ko mm-hmm, mm-hmm. surtout man xam nga maa ngi gis. dañuy yow nga doon yow nga doon tudd. yu mag a mag yi moom mu ne nan la tudd. yéen ñi koy déglu kii mooy dëkkandoo dëkkandoo bi nekk ci biir El Vision Médias. nan la tudd <laughs> jom mais jom moom moom waaw jom mi muus na de. waaw léegi yow daal yow jom nga tudd ñun ñoo tudd ñàkk jom. waaw ah jom. <laughs> non non non. léegi ñun ñoo tudd ñàkk jom. mais mais mais mais mais Diome Sall gis nañu jamono ji ah seen émission bu mag boobu ngeen di Euh, kër Tike tabarkàlla mu nekk lu lu doy waar ngeen di ko def ci biir euh, Elvision Média mm-hmm. euh, ñu gis la à tout moment nag nga am benn rôle boo xamante ni mm-hmm. da ko ciy joué ba nit ñi dañ koy tàmm sax di ko gis yow muy dëkkandoo dëkkandoo loolu loolu maanaam est-ce mën nga ñu indil affaire yi nu mu demee nan ngeen di nan ngeen di defaree affaire yi ba tey yow nga mën a nekk dëkkandoo ci biir kër gi à tout moment ñu gis avant et après yëpp dañuy gis ne dëkkandoo rek ngay doon ci kër gi lan ko lan ko waral waaw ba <laughs> ah, na nu do har borom keur gi te bu doon dëkkandoo boo xamante ne sax nopp la kenn ngay dem waaw waaw waaw mu ngi jóge lépp mu ngi joge ci élage élage borom borom keur gi ndaysan xam nga mom moy bind lepp programme lepp ku ci nek mom mo lay tek fi nga fi nga fi nga nek ok xam nga lepp ci mom la la la dépendre mom na xamna ni mom war a maa def borom kër. waaw ah ah il est temps de il est temps nag nga takk jabar nag. Ah? <laughs> chaque jour chaque jour may doon dëkkandoo rek. waaw war ngaa tabax nag de. ba pare man xamal la ma ma naqari biir kër ci kelaw bi. waaw moom nangul fay lu yaas. waaw moom moom moom <laughs> moom moom jom nangul fay lu yaas. jom bëgg na yoonu bi xale jigéen ñi ni ni duggee te jom su ma waxee jom normal doo naa li ma la xamal te musuma wax ak li ma xamal. est-ce que mosoo doxaan jom ci pet. non bari nañ moos. non dalaa yëpp. non jom dama est-ce que mu la ci pet laa koy laaj. loolu loolu boo coupé dinaa ko lijjanti. non yow rek noppi rek yow boo coupé loolu dinaa ko lijjanti mais fii si kontaan nañ bu baax a baax. waaw yow a bëgg. yal na la yàlla defal jàmm bu baax a baax. mooy borom si weer si tabarkaala mais ana cag-cag bi waaw cag-cag bi. jeena jeena incha waaw. jeena incha mais kontaan nañ bu baax a baax a baax jom sàll ngaari lam toora buru gene tabarkala mu ngi ci talimam jaara di daanaan sa xarit yëpp dañ ma est-ce xam nga ne yow wóoluwuma la ah, mais lan la sa xarit yëpp ma nopp boo amee jabar ju jongama da ngay fay très attention yow ma wax jom sàll ngay à tout moment war am ju wax jom ngay ñamax ñamax di ñamax ñamax yow man mel yow man sama ñamax ñamax yow na jaaxal non mais man Jom Sall laay woo. dafa moo man dama laa bañoon a wax rek ngay am looy wax ak Jom. Mhm. di jotee moom ci kër gi. Mhm. waaye Jom boo génnee. Mhm. day fëgg sama bët ne di fa dugg ma génnee dem liggéey. boo génnee liggéey fa lay dugg. waaw après bu duggee. ma bàyyi ak mu tëdd sa place kenn tëddu fa. Ah. te damay wéet ci néeg bi damay damay ragal. loolu de wax ji. Jom Sall moo def loolu. ah mais Jom ne nekkoo fa yaa ngi dem bi. nekkoo fa na tëdd sa place ba nga ñëw. loolu la rab dafa toog donc di waxtaan. heure nelawam jot mu nelaw léegi lan mooy problème bi. et eh, déglu lii fan lay xewee. moo ma jaaxal fii si biir. muy yaay. ah. ndeysaan. Oh. ka a way baaba waaw ndeysaan mbaa jigéen xam nga ki nga doon ku yaay a waaw baba mi est-ce que sénégalais la xam nga lu tax ma indil la lii xam nga jigéen tabarkàlla yàlla dakaa fonk suturaal ko def ko magasin bu bu doy waar waaw lu yor bakkan luy noyyi ci àdduna rek ci jigéen la jógee maanaam wàllu yu xut bu samaan yi euh, borom daraja yi képp koo gis rek ci jigéen la jógee waaye pourquoi nga bëgg a jël sa xol bi rek jëmbeel ko àdduna rek ku la ne ku la piis nga nopp ko ah. ku la xool xool bu yàgg nga nopp ko waaw mais pourquoi déggoo li baba wax may takk wax naa leen nee naa man bëgguma bu may piis sa xale góor dañ may piis dama piis moom mooy sama faiblesse ku ma bis ma topp la <laughs> ayca tabarkaala mu ngi noonu ba tey yéen a ngi ci seen biir euh, euh, émission roube fii ci biir El Vision Médias waaye nag yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi seetaan maa di fàttali tabarkaala dem leen ngeen abonné su ngeen abonné ba pare nag bës leen cloche bi tabarkaala bu ngeen bësee cloche bi nag lépp luy neex ci biir émission bi rek dañ koy jëmbeel ci seen biir téléphone waaye nag euh, noonu la ñuy jaare nag ticket di bégal fans nga xamante ni ñu ñu topp di ñu seetaan waaye ngoone béy tabarkaala kenn du moom béy njoogu ndumbeeg taa waaye suñu sponsor officiel Anta Ecom waaw dëgg neexul maa ngi koy kontaane bu baax a baax maam jaara borom parcelle mm. maa ngi koy kontaane xuja caam ndaanaan bu mag boobu mu nga ca diwaanu Géejawaay mooy mm. ma euh, euh, croisement Cambérène mm. maa ngi koy kontaane bu baax a baax aram caam maa ngi koy kontaane Charlotte euh, capricieuse maa ngi koy béggee bu baax a baax ah maa ngi kontaan ñëpp daal waaye waa groupe Bamba Osé sama groupe bi maa ngi leen di kontaane bu baax a baax ak waa Osé famille ñëpp maa ngi leen di kontaane bu baax bi leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen li ñu dese nag ci waxtu loolu kenn mës koo gis kon guerre Hmm. kon année 60 xale yi dëkk waa Suweden yëpp man la nii wër. Hmm. léegi dañoo xëy def benn groupe boo xam ne groupe bu Tika Lawbe. Hmm. soxna Samb sama waaj. waaw est-ce que xam nga ne yow buuru Sula. xale yaa ngi jëmbeelu mag ñaa ngi jëmbeelu. waaye duñ ko tuddee groupe man ak yow Tiki Ose Eze. waaye yow ah mais tamit man xale man leen bëgg xam nga nee ma sax. sa ah, jëkkër ah bëgguñu ma ñoom. ñoom bëgg nañ la kay waaye dañ ne ma yow leen bëgg. Suidène mi ngi wàcc mi ngi daanu xale yaa ngi yuuxoo ci kalooba ci kalooba bi maa ngi ne je suis là maa leen bëgg bu ngeen ma bëggee benn bëgg naa leen dix waaye lépp soxna Samb la ndax bu lekkee bu lekkee olam ni ko gërëmee cooy soxna Samb doo tuus comme man bëggoo sama waa ji nangoo liggéey fajalay xëy guddi lay wàcc faalawu dara góotee dégg ndigal kooku jëkkëram a jox bopp waaye moom daa jox jëkkëram bopp muy joxante mu joxante ñuy joxante ay bopp fii a yaakaar ne émission roube non non loolu ñun fii li fi xew lépp lépp mën a rek ñoo ko xam muy waaj jeex nañ defar ambiance non non dañuy dàgg non non non muy ma pareegu ma man émission lu xewal dañuy daf ñuy ñu waroon def yëpp defuñu ko tey te dinañ ma ko weñ wu dal si weñ ndaka lay mel kelele ken keleng weñ wu dal si da ngeen di nelaw déedéet yeewu leen boog ah, waaw day tabax pale <laughs> waa jub man de demoon naa ca day <laughs> xanaa neex ja e may ñu ambiance tuuti waay ambiance aca ay wala lëmbal ba xew a taay bi maa ko moom bi maa ko moom maa la ñaaw na maa la gën ñaaw na maa la temps bi dana mooy ma jaaga yëngal na dafa mën a way baat baat wala dafa mën a way mooy ma jaaga yëngal na sama plateau naa tàkk sama plateau mooy lii mënatu ko bi incha allah dimanche waaw dinaa def le tout pour indi ko mooy ma jaaga suñu plateau fii il faut ñu jàkk non mercredi mercredi mercredi dama koy non non mercredi am nañ kan am nañ artiste c'est calé kon dama koy indi waat nan bàyyi ba prochaine fois parce que instant yi ba ngaa dégg dëgg <coughs> artiste ñoo ñuy wër de ah, man sama téléphone bi hmm. dafa dem ba buntu bi day activé ba hmm. alors Tika Lobé kañ ngeen may invité warul xam laa la wax tey damaa dugg suñu kër tàggool dégg ba avant maa tàggoo damaa dugg suñu kër may leen photo <laughs> man mi la jur maa dem émission mu naan waa doo toog añ ba pare nangam nangam ma ne ko tee ngaa xool ma li xool balaa maa xat guddi ba guddi nga may gis ah baax na rek la rek waaye tàggool suñu suñu euh, jeex ay cax lu neex dal du dal di doy ah dañ koy dog ba benen yoon ndax ma sha allah hmm. xamna ne da ñi ni sétane contane nañ waaye ñun ñu gëna gën suñu bop ndax na xamna 30 minutes yi ñuy may kan nañu waxtaan suñu bu def réunion yaa ngi may dégg 30 minutes yi nan waxtaan suñu bi ñu def réunion ñu yokal ndax dem nañ ba moomati suñu bop ndax suñu ngaal gi ñoko ma waye ngaal gi fan see ko moom lu neex tubaarikàlla lu dal di doy émission bi fi lay xew biir El Vision Médias ñu tuddee ko man xawa saaga bi nga ñëw man ne waye waaye kuyet bi kenn bok fi andi <laughs> tàggoo gaaw ma ne ko kuyet bi kan ma ko andi sama mbàjj daaw bi nga ci. Eh, tàggool tàggool tàggool ma mbàjj daaw bi mbàjj daaw bi bii laa doon saako même couleur. <laughs> dama cee nag def waaw dama laaj ki ma sañseel. waaw ku la sañseel tey. xanaa kebe. Oh. sama waa ji. bokk mi ay pâtissier yi yaa ko tubaarikàlla hmm. macha allah. maa yëg ne tey li mu def ci man dafa bari. Hmm. moo ma crayon. Hmm. moo ma posal xef. sañseel ba ma jekk na kaw ba suuf. góor la takkal ma sa kos garçon la nga naan góor la. Oh. petit garçon. nga naan góor kan ba la góor ma garçon yi sorolee ngay mer damay mer moom suuf kaw ba suuf takkal ma uh-huh. ci kalabe kaay ma defal la bijou chaîne kenn day moom xoolal kebe ak fi réew maa ngi lay takkal dala rek tikki law bi ne wax la série osé ah finalement nag daf maa demandé woon ne ma daf ma aimé après démb bi moo ko accepté la ci la yeew na moom la solo tey ok ba noonu lay demee saa su nekk kii di ma woo xaaral ma euh, xaaral ma dugal kii de may ñu ko ngir yàlla may ñu ñu dugal ko ah am na kuy woote allo waa mais fan. i xam nga kuy woote nii. kii kan la Babacar eh, Mbaye Gueye. Mbaye Gueye ma ñu ngi dolli siyaar Mbaye eh, ñu ngi nii sant yàlla gërëm borom Touba. ah noonu baax na c'est waaw mais le grand DG. waaw mais la. waaw mais ñu ngi lay kontaane baax a baax ah tey suñu xol sedd na. yow yow yow ñoo bokk lépp yow da ngaa baax ci sa kaw di wax sa mbaax di wax di wax ni nga mel ci ñun ak ni nga bëgg émission bi tabarkalla ak tamit li ngay wàcc ñun waaw waaw eh, ndeysaan ndeysaan mhm. ndeysaan Bamba kontaan naa. maa la gën a bég maa la gën a bég sama mag yi. Bamba Bamba maa ngi ñaan maa ngi ñaan yàlla suñu borom mu defal la jàmm. allahumma amiin amiin amiin yokk sa teraanga. allahumma loolu ngay yëngatu suñu borom defal la kilo lu kawe. amiin amiin amiin Bamba xool sedd na rango tuuru na ndeysaan ndeysaan. <laughs> ni may wax ak yow nii yàlla sedd na ci sama xol bi sedd na. ndeysaan oh, ndeysaan déggal lii.

dégg nañ ci yow ok jaajëf yàlla yàlla def jàmm noonu may tey le jeune milliardaire tabarkalla ndaanaan bëgg lu baax mën lu baax te ko def kenn eh, tàggoo nga pare baal tàggoo maa ngi leen di kontaane baax a baax di leen ñaanal jàmm baax te ko sàkku ci yéen ñi nga xam ne ni nga xoolal eh, eh, dèjà laa gis mu naan nii loxo bi nan ambiance ta dem nan ambiance ta dem xoolal am na keneen kuy woote waaye du ma ko jël non baal ma dëgg bi daal te bës notification bi ngir ngay am suñu vidéo